اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا fas yéene seq ak moom ay waxtaan euh, lépp rek jëm ci wàllu asraar Serigne Saliou kon ñu bàyyi la nga nuyoo suñu mbokk internet yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di lu nuyuwaat sëñ Mourtala di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp chaîne bi ci réew mi ak ci bitim réew te ne képp ku bëgg lu lay jariñ ci àdduna ak ca sa àllaaxira del topp Tawfekh Production ndax ay njariñ rek a fi am incha allah sëñ Mourtala jërëjëf. jërëjëf Serigne Saliou ci nuyoo bi. Hmm. sëñ Saliou tey dañu bëgg waxtaanee nag lu am solo lool mu jëm wàllu kaaraange. ñu bëri ñii dañ ne kaaraange am na ñii ne kaaraange amul na des fois nga gis koo xam ne sëriñ bu ne dem na fa mënul am kaaraange nga gis koo xam ne dana takk ci kaw ba ci suuf ci ay ndomba te du am kaaraange ñu bëggoon a xam lan mooy kaaraange ak kaaraange nan lañ koy wutee ndax bëri nañu ko bëgg mais mënuñu xam fuñ koy jaar ak nuñ ko war a amee mm-hmm. ñu ngi leen ciy nax nax yu metti ñu bëggoon a xam yow nan ngay liggéeyee kaaraange ak képp ku ñëw ci yow am na ci ne ci am yaakaar ak yow jëf jërëjëf sëñ Mourtala tubarkàlla ci laaj bu laaj bu am solo bi da nga laaj laaj boo xam ne nga ko laajal àdduna nag laajal nga ko waa àdduna bépp ndax laaj la boo xam ne ñëpp ko soxla man mii rek du benn du ñaar du ñett lu ma nit woo sëñ bi fu ma dem kaaraange gi kaaraange laa fay wut waaye du ma ko am gis naa ne lu ma xuri sax ma dagg pont sax ma xuree ma dagg jàmbat jàmbat jàmbat mu mel ne kaaraange te tubaab bi di ko wax protection dafa am dafa doon loo xam ne dafa jafe loolu laa njëkk a wax képp ku la wax ne yomb na nit ki mën naa laa defal loo xam ne da aar ba pare ci lu yomba yomba yomb moo xam yow weexal ga nga koy jox wala moom sëriñ ba ci boppam mu jàpp ne mën na ko am ci tëdd ci ay nelaw kooku da nax kaaraange sëñ sëñ sëñ Mourtala mbaa xam nga ne li ngay bind jox ko nit ki mu de ko sangoo wala mu de ko takk li ngay toog ci sa kurus jël turam turu ndayam turu baayam di ko liggéey ngir Ah, di ko aar ci yami nekk moo ëpp solo sax wala moo gën a bari sax la koy jox mu di ko sango bari na ci sëriñ si nag ñoo xam ne bu ñu la xasee yónnee mbind rek boo xasee sangu jeex na war na ci ñoo xam ne mbind sax doo ko jot da toog rek ñu ne la tubarkàlla wut noonu kaaraange danaa ci wax benn lu gàtt gis nga sëñ li moom dama koy may taw fex Production ku siifur seen bi rek amee ko ci gis nga bu fekkee bëgg nga mucc ci làmmiñi nit ñi wala bëti nit ñi wutal juróom takki ngeer ngeer mi ngeer garab yi mag ci àdduna la bokk ngeer garab gu yàgg yàgg la boo ci wéree juróom-ñaari takk nga bind lu 70 laxat jaakum 70 hmm. ayatu kursi 70 hmm. wa in yakaadu 70 fatiha nga jaxase loolu boole ko téeméeri dégg sump hmm. nga di ko sangoo insha allahu rabbi ci kàttanuk sunu borom yàlla dina la defal kaaraange ba nga yëg ne am nga kaaraange am na loo xam ne ajiwul ñëw ci Saliou Mbacke sax lii moom maa la ko may yow mi seetaan Tawfekh Production nga dem nga nga defal ko sa bopp nga xool bu loolu weesoo nit ki bala ngaa dugg ci di ko defal kaaraange war ngaa xool ay mbiram war nga ko seetal seet bi ñu doon waxtaanee jamono yee war ngaa xool war ngaa xool ay mbiram ba xam kii fan nga mën a ban yoon nga mën a jaar ngir defal ko kaaraange nit ñi nag Sëñ Mourtalla xam nga lu tax ñu naqaree defar kaaraange xamuñu liñ bëgg yow da ngay gis koo xam ne mi ngi mi ngi fees dell ak bayra mu leer ko ne kii kaaraange la war a wut waaye day ñëw ci yow ne la mi bi ñaanal ma bayra bu ko defee fekkee sëriñ boo xam ne mu alal dong ko yitteel danaan la indi nangam ma defal la ma defal la ko nga indi ko bayra ba gën a yokk bu ko defee yow pont sax bu la jamee man ngaa faatu hmm. gis nga ñàkk kaaraange li mu jëriñ ci nit ki mooy loo ànd def ak say moroom boo duggoon ci oto mari di daal oto bi accident yow dong mën nga cee gaañu gisoo ba tey ñu ne oto oto ba gën daa këpp waaye kenn ca faatu hmm. wala kenn ca damm hmm. waaw lay waral loolu mooy kenn kooko ñeneen ñi dañ ko ëpp kaaraange kaaraange sangat dana ko def jaara dana ko maye hmm. sarax dana ko maye waaye am na ndomba nag ndomba goo xam ne mm, ndomba goo xam ne wallu mag la ndomba gi wallu mag la ndomba gu siiw la waaye nag man dafa am lu ma ci dolli tudde ko ndombal ndombak të hmm. ndombak të hmm. li ma ci tur wi li ma ko tudde mooy të rek të lépp loo xam ne lu lay gàllankoor la wala musiba moo xam ne da nga koo nar dalaa nar dal yow da nga koy wute niki ñaar ñuy xeex kenn ka day moroom nga xam ne boo ko fekkoon police mën na laa woo jàppale wala tëj la lool doo ko fekk da lay wuutaleeg musiba yi mm-hmm. kaaraange dëgg mu ngi noonu sëñ Murtala kaaraange dëgg da wuutale mm-hmm. ak musiba yi mm-hmm. kon lu am doole la ndomb googu boo ko takkalee sa bopp waxuma la nga dem feneen waxuma la nga wowaan ma waaye yow mi ko takk di nga yëg ne am nga kaaraange li li ma la may léegi muy muy juróom-ñaari takk ngeer yooyu képp koo xam ne jëfandikoo ko yow ci sa bopp say gént dana la wan ne dana la wan ne am nga kaaraange dégg nga am na beneen tabat yadaa boo xam ne boobu moom du ma ko maye ku ko soxla da ngay woote ci numéro yi wala nga ñëw moom juróom moom 99 tabat yadaa lay doon waaye nag dafa am xaatim bu mu àndal ak juróom-ñeenti garabi xay yoo xam ne bokkuñu seenante wuñ hmm. wallaahi lancim sëñ Mourtala loolu képp nga suul ko juróom-ñeenti fan selli ko am parfum yoo ci def nga sangoo ko wallaahi lancim képp ku ko sangoo di nga yëg yaram wu diis woo xam ne di xam ne am nga am na lu soppi ko ci yow hmm. say la wan ne am na lu soppi ko ci yow lépp ku lay jéemal wala mu bëgg laa liggéey wala mu def dara di nga tëdd gént ko di nga dégg turam di nga gis jëmmam di nga xam kii mooy kan ba nga mën koo moytu kon kaaraange lu jafe la mook bayra bala ngaa wut kaaraange bala ngaa wut bayra boo bëggee mucc wutal kaaraange ba am ko soo ko wut bayra waaw mu mel ne am na ñu bëri ñoo xam dañuy bëgg a tëb rek am bayra te duñ am kaaraange mhm. te am bayra amoo kaaraange ba musiba la baaxut musiba la gis nga kaaraange nag dafa am yuy jàpp am yu toj gis nga kaaraange gu la alxuraan jàppal ba mu dëgër kaaraange googu du toj dalay xanaa xamoo ne sëñ Mortala am na gàllaaj yoo xam ne boo koy jëfandikoo wala nga di ko naan day topp sa deret dalay aar yow ba yiir say doom comme ni mu amee léeg ci yenn secret yi xasida yi ñu ne la xasida gi boo ko jàngee sa doom sax kenn du ko gis yërëm ko hmm. noonu la amee ci kaaraange yoo xam ne boo ko dee jëfandikoo gisoo mag ñi daan daan aar seen kër ba nga xam ne saytaane wala rab sëñ saaliw dama koy tudd ndax moo ma yar moom la ñu ma tudde joxuma ko xelkom danaan wax ne ku ci dox ci àll ba mu guddi rëdd rëdd wu mag nga tëdd ci digg rëdd bi am na xale yu ko def ba tàyyi yow gis li wër rëdd bi ay tànk tànki bukki nekk ci te kenn dugg ci rëdd bi fekk leen xel kom man nga faa di fukki at doo fa dégg ku jaan mat te xel kom la ko wër lépp ay jaan laa ki bukki xam nga lu waral loolu kër ga lañ aar béjjënu tabaski bii tabaski mii ñu doon ñu doon def barki dem béjjënu xar mi am na luñ ciy soxloo xam ne kër goo ko takk rab ku ñuy tooñ jinne bu ñëwee bu buntu kër gi géej doon ci moom du jàlle sa kër mu mel ne kon kon kër yu bëri yuy tas ñàkk kaaraange bokk na ci li lar borom kër amul kaaraange kër ga amul kaaraange kon yow bor ngay am kaaraange ba noppi kër gi nga suul fa gas fa suul fa xëpp fa wis fa lépp loo xam ne kaaraange la nga xam nit ki li fekk génnut hmm. mi ngi ci kaaraange gi nga ko defal ci kër gi su génnee ne kaaraange yi boppam jum sangoo mbaa jum takk jooja moo koy aar hmm. ak kaaraange yàlla gi moo tax nit ki danga ngaa war da ngaa a aar sa kër aar sa njaboot. waxtu da ngaa war di woote ni ngay seetloo ñu seetal la wax dox la say mbir noonu nga war a woote seetlul ko sa say njaboot ba xam lan moo leen di aar lan moo leen di yiir. kon mm-hmm. kaaraange dafa doon lu jafe bayre it lu am solo ci ni la ndax suñu fàllu danoo naan yàlla nañu yàlla musa ci ndaw lu amul bayre ku amul bayre mm-hmm. du yor dara. Mm-hmm. ndax fekkee da ngay wut entreprise wala yéen média bi ngeen di liggéey ba amul bayre nit ñi duñ la joxee sànce ñi duñ la joxee marché ah. nga am bayre bu baax nit ñi bëgg la bàyyi la xel soog la liggéeyloo waaye nag loolu lépp nga am kaaraange da ko jiitu mhm. mm-hmm. mel ne daal kaaraange moom lu yaatu la mhm. waaw bel ne ne rek képp koo xam ne daal bëgg nga mhm. bay rek il faut nga wut kaaraange te xam ne moom mooy li jiitu cat nag moom sëñ bi ñu dugg si ndax cat bëri na ñoo xam ne loo wax ñu ne catama jàpp cat moom cat moom daa mel ne moom cat moom moo daa jàppaate moom cat moom sëñ Mourala émission laa ciy def <laughs> cat moom émission laa ciy def parce que cat <laughs> ni ci sëriñ si naxaatee ak yow mi ci sa bopp li ngay jàpp ne cat la te du wala li lay dal nga jàpp ne liggéey la te liggéey nga léeg-léeg léeg nit ñëw fii ne ma sëriñ bi man de dañ maay liggéey ma ne ko ku la wax dañ laa liggéey mu ne ma sëñ sangam laa de mu ne ma dañ laa liggéey nga xool ko ndeke cat doo nga ko jàpp gis nga sëñ Modou laa cat day diisal aw yaram day tàngal aw yaram day tàyyeelu xanaa am nit dana tëdd ci ni nii yow bu yàgg du mën a jug di xalangu ci lal bi rek hmm. mu dem ci sëriñ sëñ bi ko dañ laa sëf fekk kenn sëfu ko fi ne bëri na ñoo xam ne bu ñu demoon ci xew nii ci guddi bu ñu ñëwee ñu tudd leen wala ñu xool leen wala ñu fes ca fes ca xew wa bu guddi gi bu ñu ñëwee dañuy gént yu mel noonu rek yaram bu des gan xam nga lu war a loolu cat la cat hmm. nag da dem ci sëriñ mu naan la boo ma joxee nangam ma tàggale ak cat ba àdduna ak àll ba tukki duutu la maa ko wax fii ci Tawfekh Production cat amul kenn ku koy tàggalee nit ba mu dañ wicc wicc ba nga xam duutu ko dalati ñi xam ilmul asrar xam nga ñuy wax hmm. dañoo xam ne cat dafa mel ne garab garab bul bàyyi mu sëq heure bu demee ba caree sëq rek daggal te continuer li nga nekk ndax xam nga lan mooy cat hmm. bët ak làmmiñ waaw léegi li fi suñu laa li fekk mi ngi sol garam boom yu rafet yor seenam bii di liggéey yorop otoom di dawal mbaa yorop immeuble am nit ñi di ko tudd ak wax loolu mooy cat bi kon nit mënut ta mucc mënut a muccee noonu ci cat li la ciy musal mooy cangat yoo xam ne da nga koy saxoo wala sarax yoo xam ne da nga koy saxoo te sarax ya bët bii bët bii wala làmmiñ wii nga xam ne moo lay lor hmm. loolu la lay dàqal loolu la lay dàqal wala làmmiñ jamono yonent sallallahu alayhi wasallam am na koo xam ne da doon sangu am ko ko doon a ah, diw yaramam rafet na mu daal ni dal ci ci ci ci ci ci ci wi daanu feebar métti biñ ko jàppoo yóbbu ci yonent bi yonent bi dañ xanaa tey waxut awuusu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaq loolu it maa ngi leen ko mayal yéen waa Tawfekh Production ah, a bëri ah, loolu treize fois boo ko dee def waxtu ne insha allahu rabbi bët wala làmmiñ du la mënal dara moo tax boo ko boolee yi nga war a sangoo nga di ko sangoo yi nga war a takk nga di ko takk kooku jàmm ak tawfeex rek nga am ah, waaw kon cat moom émission laa ciy def spécial kaaraange yi dana danañu defaat émission ndax bëri na lu ma ci leerulut waaye ndombeeg tëggoogu daal moom mm-hmm. kenn ku nekk war na ko am jërëjëf mm-hmm. euh, leer na nañ mel na ne képp ku koy diglu xam ne mm-hmm. waxtaan wi ànd naak xam-xam te lii rek lañ soxla sëñ bi ñu dugg ci actualité rek mu mel ne réew mi fi ñu toll nii. Mhm. am na président bu bees mhm. man na président bi mu ngi def ay visite mhm. war a dem France ci fan yi allah léegi nag ban jàngat nga ci am rek ak euh, loo ciy joxe rek. waaw loolu ci actualité man nag da tax ma siifur dëgg dëgg dëgg politique. waaye li ma ci xam daal mooy ñoom ñii fi nekk nañ leen ñaanal ndax ni ma gisee seen mbir mel na ne am nañ yéene ci dox bu ko defee nañ leen Sénégal yi ñaanal te muñal leen as niir waaye boo falee nit rek di jëmba naan saxal mbaama sulli kooku du baax France googu nga tudd it mu jëm fa bëri na ñuy wax noteel suñu diggante ak ñoom xëy na noteel gi am na donte amaguñ ba léegi ñun liberté biñ bëgg waaye nag ñuñ mën na gut bala comme ñuñ mën a gut bala nag ah na njiiti réew yi maslaa ak ñoom rek ci loo xam ne Sénégal du ci gaañu ndax dégg naa Ousmane Sonko ko waxoon ko ne léegi gagnant gaña la ñuy def waaye nanguutuñ ngeen i jog ci suñu ndodd te loolu mooy dëgg Sëñ Tuubaa ba mu dem ci lan la waxoon waa anakunu shafian li xaw mi waa anakunu xaadiman fi daw mi kon nit ki képp koy jëflanteel muy faranso espagnol afrique ñëpp a ci yem jiitalal sa intérêt réew ba noppi réew mi nañ lekk te naan te dal te tëdd tëdd bu dal ba noppi nga soog a xalaat leneen bu dee ñoom njiit yi nag li ma leen di dénk mooy nañ yéen gën a yërëm nit ñi nañ leen suturaal ndax nañ xool Abdullah ibn Omar ñoom ñaar ñëpp seenu amirul seen biñ nekkee amirul muminin daj nañ loo xam ne biñ nekkut amirul muminin sax la seen dund gënoon a neex li wara lool mooy bëgg a protéger nit ñi buur boo doonee président bala ngaa lekk nit ñi war nañoo lekk te nit ñi la war a dàqaloo ñu lekk lépp nit ñi ñoo la ko war a dàqale ndax lan ñoo fal ñooy sa patron Afrique nag nit ñi dañuy dañu xàmmewut kii sa patron ak yow mi jàpp ne yow ñooy sa patron fekk yow yaa leen jiite ndax yaa leen fal dañ laa jiital ba pare nga jiita leen looloo tax kon réew mi nañ leen may ñu dal ñu bàyyi xel liggéey bi te gën a defar jikko yi wàññi saagante bi wàññi xasante yi wàññi sëriñ si ñu dal seen kaw wàññi taalibe yi rafetal seen diggante ak ñoom bu ñu ko defee rek yàlla mën na leen defal tawfeex sëñ Murtala waaw ba tey ñu ngi ak sëriñ Saliou Mbacke Lexlaas sëriñ Saliou mu mel ne wàllu faj ak yooyu tamit di nga yëngu waaw wàllu wàllu faj sëñ Murtala dinañ ci yëngu ci feebar yi nga xam ne sonal na nit ki lu mel ni ballonnement biir boo xam ne dafay gonfale hmm. di peer rek nga soxla sax toilette dem ci toilette dara du génn waaye day peer rek di génn di la sonal walla koo xam ne yaram wi dafay xesan wala ndoxum siti walla góor goo xam ne suñu borom dogal na mu néew kattan yooyu yëpp am na ay garab yoo xam ne danañ ko ci faral di di di saafara muy garab gii ngeen gis ko mu am solo lool dina fara dina faj ndoxum siti dina faj hémorroïde dina fat biir boo xam ne dafay gonfale ndax hémorroïde bu yàggee moo lay yóbbu ci tële tële nag wala yaasu billahi taala kon bëri na yu koy waral danañ ci defaat beneen émission boo xam ne danañ waxtaan ci ci ci ci ci lan mooy garab yi kon garab yi mi ngi nii moom it dana faj ndoxum siti dana faj ballonnement dana faj dana faj dana faj hémorroïde incha allah moo xam bii génn ak bii dugg nag ñaar yëpp dana ko faj sëñ Murtada waaw. daal mhm. incha allah képp ku ci soxla rek mhm. mën nga jokkoo ak sëriñ Saliou Mbacké di laas mhm. kon sëñ bi xam naa nga tàggatoo rek. waaw leen nuy bu baax di leen sant bu baax sëñ Murtada di leen gërëm kon ñu may leen benn wérd muy basmala safasun muy bisimilahi rahmaani rahim 787 kon képp kuy topp euh, Tawfekh Production saxool loolu nga xool say mbir ba xam 787 bisimilahi rahmaani rahim da nga koy ubbee nag istixfaar téeméer. nga def 787 bisimilahi rahmaani rahim nga daje ko sallallahu ala mu al xalb muy 132 da ngay def 32 nga def 100 te nga saxoo saraxu mburu soo ko mënee nag 41 yi moo gën soo ko mënul nga def 12 soo ko mënul nga def 7 yi loolu moom képp koo taqoo incha allah rabbi di nga ubbiku di nga mucc te di nga yiiru te di nga mos di nga mucc incha allah rabbi loolu nag ñu may ko waa Tawfekh Production ci sunu diggante ak yéen jërëjëf Serigne jërëjëf sant nañ bu baax mbokk internet yi nga xam ne ñooñu doon topp képp koo xam ne rek soxla nga Serigne Sall ci wàllu faj wala seet mm-hmm. wala lépp lu jëm ci wàllu kaaraange incha allah ma ngeen woote ci numéro téléphone yooyu affiché ci suuf jërë ngeen